salaamaaleykum wa rahmatullah tey nag dama ñëwoon ngir partager ak yéen benn histoire boo xam ne dund naa ko fan yi ñu nekk histoire bi moom mooy fan yi dañ maa orienté woon pour ma dem defi samay stage ci hôpital Fann weer bi weeru octobre bii la bi ma demee ñu yóbbu ma service bi ñuy wax ORL bi ma demee ci service bi commencé naa liggéey fan yooyu amu problème ak kenn ba benn jour ñu daal di may yónni ci bureau major bi bi ma demee ci biro ma daal di fëgg daal di dugg bi ma duggee mu daal di may gis bi ma gisee mu ne ma su may ñëwati ci ci service bi naa dindi sama muuraay su ma dindee sama kol ma teg coiffe bi rek ma xamal ko ne ko carrément loolu mënuma koo def mënuma dindi sama kol teg coiffe rek ndax su ma dindee sama kol teg coiffe rek sama yaram bi day nekk si biti sama baat bi day nekk si biti te man damay muur mu dal di may ne bu fekkee loolu la nga jënd collant sol ko boo solee collant sa yaram bi du feeñ bu ko defee nga daal di teg coiffe bi mais moom daal nee na naay dindi col teg coiffe bi rek ma ne ko loolu tamit mënuma koo def ndax su ma solee coiffe bi rek même su ma solee collant tamit dina am part yu nekk sama yaram yu nekk ci biti mu daal di ne ma baax na ma daal di génn foofu dem continuer sama liggéey bi ma demee di continuer sama liggéey moom jug na di wër service bi ñëw na ba fekk ba gis ma fi ma nekkoon di liggéey mu daal di ne may na noo tudd ma ko sama tur maanaam euh, ban année nga nekk ma wax ko ban année laa nekk ci formation bi après mu daal di dellu bi ñu wàccee ma daal di dem fëgg biroom daal di ne ko yow yaa ma waxoon naa ñëw naa ñëw ci yow bi ma ñëwee mu ne ma c'est inutile maanaam sama ñëw bi amul njëriñ ma ne ko baax na ma daal di ñibbi bi ma xëy bi ma ñëwee ci lënd bi ma ñëw xëy si moom fekkuma ko fa moom major bi ki ma fa fekk mooy ki topp ci major bi ma dem sol sama tenue correct muuru sama muuraay soo sama coiffe ma ñëw ba commencé di liggéey kooku mu ne ma bu fekkee li la major bi wax nangu nanguwuma koo accepté maanaam major bi li ma proposé bu fekkee mënuma ko accepté damay jóge foofu ma nekkoon dañ may yóbbu feneen lii la ma wax mu ne ma ndax muuraay bi méngoowul ak ak hospitalisation boobu ma nekkoon man nag xaw ma woon ne Sénégal am nga fooy dugg foo xam ne amoo droit yóbbaale sa muuraay ñu lay exiger ngay teg coiffe kese loolu mooy premièrement deuxièmement mënumaa comprendre nga fay sa xaalis dem defi stage yaay fay sa xaalis dem defi stage nga dem ñu lay raconter ay histoire am nga droit muuru fii amoo droit muuru fële. may laajte yéen sénégalais bu fekkee yéen da ngeen a xam benn loi boo xamante ne nii dafay wax ne am nga droit muuru fii wala am nga droit muuru fële ci pays boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman boo leen ko xamee ngeen daal di may wax bu dee loi boobu am